man de bi ma gisee geste bi mu nekk geste boo xam ne dama ko xeeb lool ci laa laaj sama bopp ñaari question ne est-ce que moo ko bind ma daw dem vérifier ji ba xam ndax yaa ko bind effectivement yaa ko bind mu leer ma ne man su ma demoon ba nara bind mbir bégg ne sama ex jabar dafa nekk ci ay wax yu sew ma ne est-ce que su ma bindee lii gars yi du ñu xelaat ne moom lay waxal man ma tegaat lépp ci suuf ba jamono neex waaw dama koy du ma ko def ngir man du ma ko def ngir Mia mais dama koy def ngir xale yi nga xam ne ëllëg mën nañoo doon lu nekk te doom nawle la rawatina koo xam ne même bu dee génn guddi jàlloon na ko ci sama ginnaaw ma toog di yàkkanti mu am malheur pour ma génn manifester wu ci góor <laughs> man du ma la jiiñ dara ma la dara waxaluma la dara parce que lu ne faa nga kenn du ko jiix mais dama bëgg nga xamal la ne Mia même bu nekkee nit ku bon Sénégalais yi dañ koy bëgg ndax ñun li ñu xam mooy dignité ak personnalité moom am na ko ba mu doy mosul laa tontu yow maa doon sëy sëyatuma nga ne Poutine dina ci jot guerre dina am luy guerre bi yow kañ